on va terminer par les deux yi nga xam ne ba moytul c'est là où ça coince. Mhm. Euh, Ablaye Daouda Diallo. Mhm. Euh, Ablaye Daouda Diallo mu accompagne Macky Sall dans sa traversée. Mhm. du désert. Euh, la l'histoire dit que il a n'a subi les conséquences aux impôts et domaines il a été. tudd isolé euh, bloqué dans son avancement Macky Sall ñëw pouvoir def ko ministre du du budget mu jóge ministère du budget nekk ministre de l'intérieur euh, mu jóge ministère de l'intérieur euh, dem jël ministre des infrastructures euh, bari na ay projet routier infrastructurel yoo xam ne c'est sous son magistère la ñu ko démarré yenn yi c'est sous son magistère la ñu ko inauguré je me rappelle il y a beaucoup de tournées du président yoo xam ne il était dedans parce que il devait inaugurer des projets euh, infrastructurels alors mu jóge foofu ñu nommé ko ministère des finances Euh, finance mu atterrir euh, comme ministre d'état directeur de cabinet aujourd'hui il est président d'institution il est maire de Boké Dialoubé une commune euh, du département de Podor il est également le coordonnateur départemental euh, de de de de Podor et puis mu am un débat autour de lui Euh, et c'est Abdou Mbow et, et certains qui, qui qui ont posé le ñu ne affaire bi sa doit lui échoir parce que lui c'est un c'est un appel authentique Mbaye Ndiaye sax il paraît que ci secrétariat exécutif bi nee na président daal boo war demee bay war a dem nga mbir mi de sa héritage da nga ko war a bàyyil ñoo xam ne fekkee nañu ba ngay ba ngay ba ngay sos alors Abdoulaye Daouda Diallo chance atout handicap enfin li nga wax noonu nag franchement li nga mujj wax laay euh, ci lay taxaw naan da ngay bàyyee ñi nga xam ne fekk nañu ba ngay sos est-ce que bu doon ña fee nekkoon ba ñuy sos ba léegi ndax ñoom dinañu ndax bu doon ñooñu amuñu ci dolleeku ña créé woon APR amuñu ci dooleeku dina wax Macky Sall dina gagné 2012 ndax dina gagné 2017 ndax dina gagné 2019 ndax et cetera ndax et cetera parti politique dafa am. day ubbeeku di am ay doole yu koy renforcer euh, day dund di màgg di gën a yaatu jàpp ma ni que yow nga nekkoon fi ba ñuy déposer statut yi tax na nga ëpp légitimité ka nga xam ni que ñëw na tey waaye moo la ëpp mbooloo carte politique ay carte la ñuy wote dañuy wàññi ay ay baat ki ëpp baat mooy gagné kenn du ni kii moo légitime kon nañ ko fal. parce que bu mën ngaa taf ku légitime mu dem ñu dóor ko ci élection yi est-ce que soxla nga ñu dóor la ci élection yi da soxla boobu dafa nekk un débat pour man stérile et c'est d'autant plus vrai souvenez-vous moi au lendemain de la présidentielle de 2019 dama gis débat bu mel noonu xam nga j'avais pré j'avais dit l'heure pour Macky Sall de créer un nouveau parti politique bind naa ko avec des une analyse bu taxaw ni que li bu créer parti politique bu bees day rey débat maa fi nekkoon démb bëgg démb wala maa fi jiitu démb ak bërki démb. muy la grande majorité l'alliance de la grande majorité présidentielle bi ñu doon wax parce que aussi euh, gis nga débat boobu bi ma ko souligné man am na ay nit ñi nga xam ne dañ nekk yenn parti nekk Benno Bokk Yaakaar dañ ma woo may kilifa ni ma mais li nga wax ni ma jàmbaar ñun loolu yàlla na ci yàlla dugal président ba mu def ko ndax ñun bëgg nañuy ñëw ànd ak moom dans un dans une formation pour demee mënuñu dem APR kon doon nañu yombalal ñun ñoom ñëw. nekk benn parti ànd ak moom le président à un moment cette idée-là lui a traversé l'esprit lu tax mu génn ci xaw ma lu tax mu génn ci xaw ma parce que gis nga dama lay yox benn anecdote ba nga xamee ne euh, quelque part aussi c'est un complexe que certains mettent sur le président et parfois da koy tënk ci lu bari te waru ko ci tënk gis nga le premier remaniement du gouvernement de Abdoul mbay

président ñëw ay dugg si gars yi fekk gars yi toog ah gars yi na leen def sa waa yi waaw président yi lay soxla soxla woon waaw waa jàmm waaw jàmm rek la jàmm la du jàmm waaw mu ni waaw euh, ñu ni ko ñun président dañu àndoon ak yow ba fi dara dul dara amul lu ñu déggul sax ci suñu naataango waa PDS doon yoo xam ne Macky Sall bu faloo war euh, war leen léegi nag bi nga faloo ñu ànd ceeg yow dañoo gis nga def remaniement ba nga xam ne c'est un remaniement dirigé contre l'APR ndax waa APR rek a génn wala ñi ci ëpp boobu waa APR lañu jamono yi la Macky di wax naan la patrie avant la avant le parti ci biir waxtaan rek am ku yëkkat. ku yëkkat. Hmm. <laughs> la. déet grand déet dafa. ah. <laughs> dafa ah, da nga xam xam ki may wax de. gars yi calmé ko le lendemain. sama nijaay bi la. le lendemain xaw ma kan na de xaw ma kuy sa njaay ku kuy sa kuy sa baay. sama nijaay séeréer bi la le lendemain le lendemain. Euh. ci le président commencé ñëw ñiy jël dugal fii. def def ministre d'État def dugal yooyu daal di sens. xam nga loolu c'est une forme de pression morale et psychologique que les gens mettent sur le président c'est de bon guerre sans que ça leur bu fekkee am nañu xam ne defal nañu président am nañu leen ñu ko defal lu ëpp loolu. xëy na euh, xëy na du ñu au début wala ñu nga fa au ñu nekk fa au début te xamuñu leen woon sax. Hmm. ñu defal affaire la nga xam ne defaluñ ko defaluñ ko dafa dafa dafa ñu defal affaire wala defal nguur gi la nga xam ne ñoom xamuñu ko. mais sur le profil de Ablaye Daouda. Hmm. Hmm. quels sont ses gens quels sont ses atouts euh, quelles sont ses chances de pouvoir faire aboutir. Euh, une victoire de Benno non mais c'est les mêmes chances et les mêmes atouts que, les autres franchement euh, candidat bu président tànn am nga un avantage du soutien du président surtout que li ma xalaat mooy président mooy si nekk sa directeur de campagne waaw mais moom daaw Daouda yenn yenn am na ay atout dina indi euh, son quotient euh, personnel boole kook le quotient du du président de la République Euh, est-ce que gis nga ci moom des chances euh, un quotient personnel boo xam ne moom mën na ko indi pour faire aboutir une bu ñuy def communication en tant que professionnel il doit travailler son élocution son image travailler euh, la perception le public doit avoir de loolu nag ay professionnels yu mel ni yow dañ koy def on ref une personne une personnalité politique dans son discours na muy waxee posture am son image parce que loolu aussi daf ci politique maintenant daf ci am solo Ablaye peut-être handicap bi muy gën a am peut sa c'est son élocution il doit travailler ça ça peut-être que c'est pas c'est la politique mais une candidature pour la gagner dafa bari ci lu muy laaj. dafa bëri lu muy laaj xam nga kiy neex. nit ñi mais mais remplir na légitimité bi. en termes de politique et de compétence ñi nga fi lim ñëpp ku ne am na légitimité. non politique. non mais oui bien sûr bien sûr il a la légitimité politique cela va de soi. il a incarné des fonctions publiques importantes officielles de l'État il a un mandat électif comme ni nga ko waxee euh, et cetera kon personne ne du ne ne pourrait s'étonner de ce choix là ku nekk da ngay dëgg rek xam nga lan moo cee xew kii da nga naan diwoo ma gënal. waaye diw amu ci droit kenn mënu koo wax. ci ñoom ñooñu ñëpp ci ñoom ci ñoom ñëpp ak ñi ñu tuddul sax. légitimité au même titre que tout le monde maintenant sur qui va porté le choix du président on attend de voir. alors euh, ma terminer par hmm. euh, Amadou Ba le premier ministre alors Amadou Ba il est directeur général des impôts et domaines depuis 2006.